donc gis ngeen ko dugg na si laaj nga may def nombre bi nombre bi waa nombre bi dinaa leen ko joxaat après ñoom Aïda donc moo nekk nii gars yi ngeen commentaire ko après ma épinglé ko képp koo xamante ni pare nga pour jàppale yaayu Aziz Dabala wala sëram famem numéro bi 78 la 78 496 78 Satou Dramé merci na ne numéro vocal ak yéen ñëpp jërëjëf Satou 78 496 99 67 78 bi mu ngi noonu yéen ñi nekk diaspora tur bi bu la ko laajee Aïda Ba Aïda Ba lu ngeen am dix euros vingt euros cinquante euros cent euros mille euros lu ngeen am yàlla moo leen fay keroog am nañu participer macha allah ba ñu ne woon affaire bi euh, plafonné woon na mais léegi déplafonné na ko donc numéro bi mu ngi noonu 78 496 99 67 képp ku si yónnee wéef rek rakku Aziz Dabala mooy Aïda xale bu jigéen bu ngeen doon dégg moom mooy jot wéef bi direct bu ko defee dina donc ñu leen di jaajëfal yéen ñi participer donc ñu déglu frère Aziz Dabala mu expliquer ñu man déglu naa parce que ma doon def live y ak une nit fi nekkoon mais amener na ñoo xam ne ko parce que il était quatre heures du matin donc dañ leen di tegalaat rek moom nee ni la fekkee affaire bi lii ñu déglu ko la famille ñu tàppati s'il vous plaît. ñu déglu s'il vous plaît. moom moom nagu yorul caabi pour ubbi. déedéet maag moom sax ñoo fi dafa dafa maanaam dafa enfoncé buntu daal maag moom ndax nit ku jaaxle doo mën a xaar ay caabi ak yooyu. danga la koy xaar mënu si ñu enfoncé bu soon mënu mënut a nekk ndax buntu encastré la léegi dafa fekk mbay sekk moom demoon na étude ji menuiserie. kan moo wuti menuisier. mbay sekk mbay sekk mooy am. kan moo ko sant mu wuti menuisier yow wala nabu. loolu nabu la bu waaw moom moom laa fekk ci moom moom na ñoo nekkoon sur la place léegi nag moom dem na uti ci man ba ma ñëwee man juste man na ba kese laa fekk na uti menuisier nekk en hmm. ko comme boo dajjee bunt bi yow yaa ngi doog a ñëw sa néeg noo bi a noonu rek waaye ba mu nee ngàpp rek ibbi ñu ibbi ko noonu maanaam pour gis li nekk ci biir. léegi Mm-hmm. kan moo ubbi dugg menuisier bee ubbi bunt bi wala yow wala na. ba menuisier bi ubbi mën fa arrêté tegu fële. man man moo ko ubbi xam nga ñun loo loo daaj yow maanaam lu ñu daaj yow mënoo ko ubbi am na am na système bu ko menuisier bi di. waaw menuisier bi côté cellule bi lay daaj. dëgg waaw kay maanaam fi fi nga xamante ne fa la fa la loxo bi nekk. wala cellule bi loxo bi. waaw li fa lay daaj. fa la jël tanaat bi léegi kan mooy pousse bunt bi yow wala na. moom moom moom moo moom moo jël tanaat bi buux ko. maanaam maanaam loxo bi ubbeeku ñu buux. maa da nga ko jàppale ci góob bi ndax loolu. boobu police ñëw na wala police ñëwagul. kenn newu fa boobu kenn nekk fa man. man mhm. Mbaye Seck ak Nabou Leye ak menuiserie yi. te menuiserie ba mu ubbee ba pare sax dafa teel gannaaw moom man maa ubbi bunt bi na ko ŋàpp nii ndax xamoo ñu fay fekk man ndax dafa am peur bu nekkoon ci man ak ak tiitaange daal ndax mun ngaa ubbi taxaw am li leen fekk sa kanam ma ma ma toog ma jël ma jiital sama loxo bi ubbi ko nii mun a ŋàpp. waaye bañ koo defee rek ñu gis deret baa ngi ci couloir bi la njëkk a gis couloir la njëkk a gis. ba ngeen ubbee buntu bi très bien kat mu ngi noonu deret lañ jàkkaarloo nii ci couloir bi nii. Hmm. la fekk nag man xaw ma déretu xaar sax mooy loolu ñu duñ soxlay xaar wax ma ak leneen léegi nag peur boobu moo nekk ci man bugguma dugg buggutuma dara si la pare sax man si bu man waaye nag waaw war si nabule moo ne ma demal mu labourer si demal man tam ma dox un pas deux pas ci deret bi ma romb ko ma romb deret ndax deret ba mu fu mu nekk noonu ak néeg Aziz ibbeeku na tamit lal bi jaxasoo fu mu sësoon saagam yëpp saag yi jaxasoo en même temps fi nga jàkkaarloo ci miir bi nekk am deret bu bari bari bari bari bu gën a bëri mur bien en face nii bu bu gën a bëri bi nga romb sax ma pare ma pare man boobu man génn rek laa bëggoon doyal laa sëkk moom dama doyal sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ci ko ma yow bi billaahi mu ngi ci ginnaaw boobu tamit dugg fekk la mu ci ginnaaw ba mu ne demal demal man maa dugg man kese muy moom muy bay sekk kenn dugg ñu ngi si ginnaaw ba ba gis moo gën a pire. Euh, balaa ma may réer lan ngeen si jàngat di wax c'est le de Aziz Dabala son grand frère nee na moo ko woo ba mu ñëwee mu ngi fekk Nabou ci kër gi. boobu noob mu ngi ànd ak menuisier bi moom c'est la première fois mu ñëw si kër gi le frère de Aziz Dabala loolu la wax c'était la première fois naabu nag yaa gën a dem si kër gi xam na kër gi frère boo xam ne moom mësul teg tànkam si kër gi mun nañu yëg ba ñu yëgee fekk bu moom ak nabu ñuy jéem a bunt bi ne mu dëgër nabu woo menuisier menuisier bi dajji côté loke bi ba ñu ubbee dugg mu ne ñu gis deret ñu gis deret nabu ne demal lu bañu dit ñu gisee deret nangu en journée wuy sama ndey a y'a problème de sama gars pour ba léegi nag ñii di toog naan vous du si dara vous du dara non sincèrement parler pour dire vrai dara la si wax dëgg fa vous lañ ko nag mais nag gars nañ leen nekk ni vous sincèrement parler de moo rey moo santaane mais dara la si parce que de un jigéen jigéen bu gisee ay nit di xeex sax kenn gàjji mu am dara da ngay gis way sama ndey dina ko rey way yaay atte eh, leen ñi yéen jigéen yow nga toog Aziz Dabala déggoo ko deux jours woo nga frère am bi ngay yaa ngi dem ca kër ga lu tax ba nga ñëwee ci kër gi kër gi tëju xalaatoo ko daay jël sa bopp wala woo menuisier wala woo xale góor yi ci buntu kër gi lu tax nga woo frère am pour mu ñëw gis ah te yaakaar naa ni sama nopp bi nu mu wéree noonu la seen nopp wéree léegi ñu ñëw ñu bunt bi waaw dajji nañu bunt frère bee wax de ñoom ñaar ñoo fa nekkoon man nekkuma foon mais frère bi moo ne ba dajjee bunt bi dañoo dajji rek gis deret waaw mais boo dajjee gis deret te mosoo gis deret ci appartement Aziz nga fa doon damay attiya lu tax nga bu jékki-jékku rek daw wàcc escalier yi bu mu nekkoon si yéen noonu lay def parce que deret bi ngeen gis xam ngeen ne du deretu mbóot du deretu kaña deretu nit la war a doon ba nit nit boo xam ne yaa ngi koy woo deux jours te sa xel mën na dem ne nit kooku kon kay xeet summi yëre ay fu mu jëm ay xalambu da nit ñi waaye gëmal yàlla yow defal ndànk yow soxna si lu la dal ah Sénégal lañ dëkk nag xam nañu xale jigéen ñi bu ñu tiitee bu ñu jommee rawatina ki nga xam ne yaa ngi koy woo def ngeen presque des quinze ans dene sa xarit la sa nit la woo nga ko deux jours te nga dem si kër ga toog bi nga ñëwee rek comme da moon amoon intention daaj yi exactement moom nee na dafa dem bay daaj yi mais dañoo ne foog famille bi ñëw foog famille bi ñëw mais sama gaay ñu eggali si ba mu daajee bunt bi mu gis deret moom Nabou Leye selon vous ba nga gisee deret nga waroon wax frère bi woy fu ñu jëm woy ñun yàqu nanu déret kër Aziz ay lii de rek daw ba après frère Aziz bi sax moo la war a dàqi ne na koye na koye foo jëm ñëw defal la mais da nga taxaw nga ne dugal déglu leen frère bi de après ñu avancé daf ko ne na moo mën a dugal dugal ci biir lu tax na bu yow dugoo ànd ak moom te yow foofu sa kër la tey nga mën a wax ne dugal te chaque jour yaa doon ñëw di dugg lu tax tey duggoo ah gars ah kër boo xam ne sa kër la woon sa këru xarit sa kër la sa teg tànkam c'était la première fois kooku kay warul dugg yow yaa waroon dugg magu Aziz bi topp sa ginnaaw parce que yaa koy dalal yaa xam kër gi moom xamul kër gi léegi on continue ñu déglu ma jàkkaarloo moom te wóor na ma lii nekkul xaar nekkul dama doyal sincèrement parlé ma doyal ma doyal sëg boobu moom moom nabu le mu ne ma mu ma xoolal salle de bain bi yéen yi dégg kii wax bu Californie man nee naa leen s'il di déglu seen bu leen ma xool nekk ci laa gisu rek gis salle de bain bi dox tuuti gis rek ci laa ma gis Sadio Diop Aziz fekk waali la man loolu nee na boobu gisoo Aziz gisuñu Aziz gisuñu dara léegi ba ma gisee ba ma gisee waali nag man xam ku gis deret rek dee waxuma laa nit nag no tiene sálveme y sálve bien bi waaye nag afflamé ne maanaam maanaam jël na forme daal xóot to go after. Now, Lady Nako Afonsen. Dougal sister the baby. So the girl without the joy. koo jooy ba góor mooy jékki-jékki gis ku ñu rey sax daw jooy moom munoon na taxaw en tant góor dëgër mais gis nga xolam mënatu ko te ki ñu rey du raxam de waali la moom am si góor Nabou Leye moom tiitul dawul jooyul ba ñu daajee bâtiment bi ñu dugg ñu gis deret naa bu lay waroon wàcc escalier daw ba frère Aziz war ko daate mooy lim leen na ma sànq def ko na bu lay faroorul muuma daanu na wéy sama àdduna yàqu na kon Aziz bi may woo fan yëpp jotuma Aziz dee na parce que xamoo lu xew parce que deret nga gis réagir noonu ah frère Aziz dougu si salle de bain bi parce que moko ne salle de bain bi waxal na de wax de de man te que waxal man lu meex leer salle de bain bi la première fois mu Aziz C'était la première fois mu Aziz mu salle de bain bi parce que ba mu ñëwee xol ci kër gi gisul mu la mais salle de bain. parce que ñëpp xam ne ne néeg salle de bain souvent day rideau wala buntu bu doon dafa dugg si néeg bi rek gis à la rigueur wala gisul da doon génn ne ah gisuma fi dara xaar ma xooli saali wala waay mais lan moo ko ne demal ci salle de bain bi teew frère bi moo ko xam na bu ne xoolal ci salle de bain bi mu dem ci salle de bain bi mu gis booy bi jaaxaan ñu jam ko mu commencé néewi mu jooy mu daw boobu nabu jooyul dawul fa mais laisse tomber <laughs> après ñu ñëwaat si déglu. dofee laa dofee dem ba ca terrain ba ca terrain ba laa jubale ji kay boo génnee kër Alice. léegi bi ngay génn ana ana nabu. mu ngi foofu fa la ko bàyyi man kay pare naa ci bamba yow yow da nga gis as euh, euh, waali si saa la fin bi. pare man pare waaw man kay man. lan moo tax nag ñëw ba. waa nekk fa jooy am porte comprendre ma comprendre ma daal comprendre ma xale bu góor moom doon defal di ma defal di ma defal di ma defal ba ma giif ba ma giif waaye nag ba sama xel bi ñëwaatee ma xam ni ki xam xamee naa sama rakk ki ma gis du sama rakk mu suñu deuxième dem ñuy demaat ba waa ñu delluwaat ba ñu delluwaat maa ngi man la ak Mbaye Seck ak suma rakk mooy Maam Malick ki ngeen gis mais sa sa xarit bi ki muy wax nii mu doon yuuxu mm. kooku du man maam Malick la ñu dañoo xaw a nduroo mm. ki doon ci dëj bi ba ñuy ba mooy man ki yuuxu ci ci ci ba ñuy suuli ab Aziz kooku mooy maam Malick ñun dañoo xaw a nduroo borom kurus kurus bi nga xamante ne pambaay da koy tooñ mooy man man lay mm. léegi nag keneen ki doon kooku mooy maam léegi kooku ba ñuy dem ci deuxième dem bi moom ci la si man maa man la ak moom ak nabulay ak Mbaye euh, Seck ñu yor suñu portable le fait que foofu def naa lampe bi dafa fayoon sax te nabulay sax mu ngi ne ma taalal lampe bi à droite à droite taalal lampe bi man man man ma ne ko di xaama génne sama portable ma taal ko ñëw ñu ñëw maa moom sama rakk ko yëpp ñu tiim. ba léegi yéen a dégg. jàngat leen de xëy na bee passé amu leen woon jot mais tey dafa bëgg ngeen déglu ginnaaw bi mu leen ne ba ñu dajjee bâtiment bi gis deret nabu dawul jooyul mu ne magu Aziz bi avancé magu Aziz avancé mu ne dugal si néeg bi mu dugg si néeg bi gisul mu ne ko dugal si salle bain bi mu dugg si salle bain bi gis booy bi moom dafa daw jooy ma ne ko ana nabu mu ne boobu nabu foofu taxaw sëgëm góor moo mën a daw jooy lu tax jigéen dawul jooy ba ñu ëlbateeku moom ak frère bi après ñëwaat ba ñu ñëwaatee su les lieux naboo ngi fa waat nabu di ko ne taalal lampe bi est-ce waroon na mën a am doole fu muy waxee ay jooy ñoo foroon fekk booy yaay wooy wooy fu ma jëm mooy sama ñoonte dëgg jigéen nga dégg sa càmmiñ gisoo ko ñaari fan yaa ngi koy jeex déggoo ko ñëw ngeen si appartement bi nga xam ne mooy appartement ubbi ngeen appartement bi gis deret loolu jooyoo yuuxuwoo tëboo amul problème nga ne frère am demal kooku dem dugg ci biir dugg ci salle de gis deret daw jooy yuuxu yow nga des jooyoo yuuxuwoo daw mu dem def demi ñëw yow nag bu si boppam moo ko ne taalal làmp bi ma ne leen nag bu doon jigéen ñi ma xami la taalal làmp ji dañ ko mën a wax heure boobu dañ leen di sotti ndox parce que de un gis nga deret de deux gis nga frère Aziz nee na la rey na lu booy bi mu jaaxaan jamono jooju waroon nga xalaat est-ce que du Aziz sa ko rey nga sax tiit nga sax tiit nga sax tiit parce que Aziz sa ko rek nga tiit loolu quoi mais tiitoo loolu dem ba naan taalal lamp bi ku doonoon si yéen doo am ne taalal lamp bi même bu dee du Aziz la ñu rey mais waroon nga jàpp ne ak ah, xale bi dee kon Aziz moo ko war a sama Aziz rey na nit da ngay tala yooku tala jooy dama bëgg ngeen di déglu parole encore une fois c'est le frère de Aziz mooy wax ñoo bokk ndey ak baay après ngeen jàngal. waali comme ñu xamuñu waali ñu ko léegi moom Nabou moo ku nekk foofu ku ngeen gis dafa dégradé ñu ne ko waaw mu see waali la. dara bi demee moom bañ timi nekk foofu ku ngeen gis la. kullaaltara pare nak laalu ñu dara man nek fa di doy mi ñëk fi di jaxlé ni nek parce que man ba ñu di rak mo def li lo la lañ wax bo ma yo di so ko sa frère gis nga aziz sa tax parce que dañu tudd wañ bi te saal bi am ab studio la waaye Aziz Ibebu ak Ngamebu Miroton ku doon xeex daal ku xeex ku xeex te te di si duus bi kenn dee ñu ñu nekkoon ci kër gi ñaar ñaar ñu doon xeex wàcc nag suuf li ñu wàcc nag léegi bu mu découvrir Aziz nag ñun moom du du équipe baa ñu waaye ci xaritam yi la daal moo ñëw kooku comfortable dengan dewa Hesarbi terserah Abdul Aziz. Mulai léegi léegi yow ba nga duggee si salle de néew bi lu yàgg la wala lu bees la ak est ce que am na lu la xeeñ parce que maa ngi dégg ñu yàq ay odeur am na lu la xeeñ bu dugg si benn jam-jam bu ñu gis am na ci biir dem dem li nga xam ne dafa néewi dafa néewi nga dem xama nit lu ok ñu pause fii balaa li wax yëpp di génn si nopp ñi di déglu parce que pour la famille ah. ñu ngi yem fu police ñëwee te police Nabou moo woo ana police bi lu tax woowu ñu police Pikine ñu tëb police Pikine lan la wax ba benn policier ñëw caaray boo wootee ne allo commissariat caaray caaray dañ leen ne woo leen police Pikine wala ñoom en personne then he just stand right there, what police speaking, the other vocal effect picking, police acted no fall, said the minute member. Auto police charo ñuul commissaire bi yàmbalul ay élément muy ñett wala ñeent aí, por exemplo, la zone am nekk caaray euh, excusez-moi police Pikine